démb balaa tey. ñu jëm ci élection yi nga xam ne ni mooy à la mairie de Dakar tey Barthélemy Diaz dafa opposé woon carrément pour Abbas Fall nekk le premier adjoint à la mairie de Dakar yàlla di def ñuy dem di cheminer ensemble di cheminer ensemble ba un moment bien déterminé ay obstacles yu ñu posé wu suñu diggante. te obstacle yu ñu mën a lijjanti la yu ñu mën a jaloog la yu ñu mën a waxtaanee la yu ñu mën a trouver des points stratégies yi nga xam ne ni on peut le régler parce que quoi qu'on puisse dire on est dans l'opposition et on reste et on demeure dans l'opposition comme ni nga koy waxee mbur ak soow ak caaki rek soow ak loolu seen philosophie la parce que gis-gis la koo xam ne ne la plupart pour mieux diviser la man loolu laay jàngatee mbir boobu ci kàddu yooyu ñuy dërmal ci li nga xam ne ne mooy président Khalifa que kàddu bu amul la jusqu'à présent il reste opposant jàngat bi ma def nag ci li nga xam ne ne élu conseil municipaux yi toog nañu ba waxtaan dëtmal ko jëmale ko ci Abass Fall dafa doon loo xam ne ne mooy dëgg parce que conseil municipaux yooyu nekk luñ fi ay parti politique wala nekk luñ fi dañ fi nekkal pour le Dakar waa ñoom Dakar waa yooyu moo leen fi tax a toog parce que les Dakar waa ñoo leen fal kon Barthélemy Diaz war na jël seen mesures xam ni moom ak ses limites lii la am droit def lii la amul droit def parce que nag parité boobu bu ko respecté wul dañoo war a reconnaître benn affaire que état de droit bi nga xam ne ne ñu ngi ci réew mi ñun ñëpp di fi dund di fi yeewoo am na droit topp ko juridiquement ba nga xam ne ne tey jii yenn mbir yu bëri bu ko bëggoon a voté ci budget li nga xam ne ne tey pour defar la taxawu seen pour defar la Sénégal tey du doon benn difficulté ci moom. nit ñi dañoo war a xam loolu loolu leer seen bopp yi parce que tey parité boobu ñuy woote c'est-à-dire parité boobu noonu loolu la ñu waxoon en amont mooy am mais ba ñu nekkee ci liggéey dans l'opposition liggéey bu rafet bu jéggi dayoo tey moom moo waral ba jusqu'à présent ñu ànd ba moment bien déterminé tey ñuy commencé dégg du nga baal ma ci kàddu gi du n'importe quoi des insultes des intimidations des diffamations concernant notre leader Khalifa Ababacar Sall est-ce que vous me comprenez affaire bi dem ba wàcc décentrale wàcc à la base parce que bu ñu demee ba léegi ñun les militant de Pastef vous les militants de Pastef ak nous les militants de Taxawu Sénégal amatuñu benn coordination déggoo ci waxtaan déggoo ci ci ci ci objectif sur des objectifs visés amatuñ ko loolu jàpp naa ne tey jii divergence commencé na posé wu suñu diggante kon li nga xam ne ne day yàqal lee Dakar waa moo tax Barthélemy Diaz woote les conseils municipaux te nekkul décision bu mu jël parce que tamit dafa am loo xam ne dafa war a leer tey post yi nga xam ne ne tey comme dix-septième adjoint bi Barthélemy Dias ki mu ko njëkk a proposé waa Pastef la yeneen post yi mu proposé ko mais poste bu mu leen proposé ñoom ñu rejeté ko ñoom ñu ne ànduñu si ne bokkuñu soxlawuñu post mais li ma jaaxal soxlawuñu poste waaye dem nañu voté ci biir urne yi soyons clairs ñoom ànduñu si mais dem nañu voté ci biir urne yi kon li nga xam ne nag moom moo ma jaaxal dëgg-dëgg te war koo wax mu leer ñun mënuñoo ànd pour defar dakaar pour defar Sénégal mu war a am lu ñu bloqué blocage boobu nga xam ne dafa war a jóge ci Pastef te ñu doon ànd ànd nawle ñu doon ànd ànd bu rafet man dama jàpp ni bu ñu demee ba toll bii niveau parité boobu war nañ koo delloo ñu respecté waat ko tegaat charte mais bu ñu jógee ci parité bi bu ñu jógee ci parité bi loolu rek du jafe-jafe bi ah parce que mhm. assemblée nationale gis nañu taxawaay bi daanaka amul lu ñu yàkkul Ousmane Sonko ñu gis ñuy làmbisu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di député yu bennoo yi ba sax di jeter ay fleur ki nga xamante ni moom moo di moo di Macky Sall euh, loolu tamit est-ce que euh, xel mën na ko nangu ci ñoo xam ne si nii ne ngeen ay adversaire ngeen xam nga euh, Macky Sall hmm. ñun ba ñu tàmbalee politique jusqu'à présent. bu mu tàmbalee ak léegi. ñun Macky Sall moo mës nekk suñu adversaire numéro un ñun mësuñu am beneen adversaire dafa war a leer Macky Sall moo ñu tëj kaso Macky Sall moo ñu acharné Macky Sall moo ñu tegal tuuma yi nga xam ne ne newul ci ñun te defuñu ko tàmbalee ko ci Karim Meïssa Wade nga pare ci Karim Wade ñëw ci ci ci ci ci Khalifa Ababacar Sall kon Sonko tey endurance bii muy dund. wala souffrance bi muy dund nekkul moom kese moo mës a jaar ci kaa bii la nit ñi di fàttaliku parce que ñun ñi fi juddu yëpp juddu nañu avant 2000 kon tey mënuñu teg enjeu politique yooyu jëmale ko ci ñooñu ñu dem bay dëtmal ki nga xam ne ne tey jii ñoo ngi ci yoonu defar Ousmane Sonko yàlla tegaat ko bii nattu man dafa jàpp ni daf ko war a jël philosophiquement dund ko philosophiquement ba yàlla tegal ko bii nattu parce que tamit quoi qu'on puisse dire dialogue bii ñu dëtmaloon ba dem ko tey moom moo indi vote bii ñu jëm à l'Assemblée nationale mais ba ñuy dëtmal ci dialogue bi il a dit il a il nous a traité de tous les noms nous la taxawu Sénégal parce que da ngeen xëtt charte bi ah. mm. yow ni nga ma wax benn charte parce que charte yooyu amul la ñu waxoon maa ngi ah. maa ngi ñëw maa ngi ñëw législative dañoo ànd local ñu ne ba ñu demee ba accéder aux élections présidentielles la ku nekk détaché wu xool nu muy tojee bopp dina xam kon ñun jàpp nañu balaa ñuy dem tey assemblée nationale tey balaa ñuy accéder ci jaloog boobu ñun waxoon nañu ba pare lancé sa message ba ñëpp xam ko que ñun on ira à ce à à à ce dinañ dem ñun waxoon nañu loolu léegi man li ma mënul comprendre contradiction bii am ñu ñuy traité de dealer de du n'importe quoi parce que tamit dañu war a xam dafa am ay articles yi nga xam ne tey di nga ko voté au niveau de l' assemblée tey article euh, comment dire vingt huit vingt neuf cinquante cent cent vingt deux cent vingt trois la majorité de l' assemblée nationale di ci ànd mais est ce que loolu noonu Khalifa Ababacar Sall rek moo ciy bénéficié wu. je me pose la question et je vous pose la question aussi est-ce rek mooy bénéficier wu ci loolu est-ce que dans l'avenir du amaat beneen détenu politique comme bu mel ni Ousmane Sonko tey ñu génnee ko tëj ko génnee ko ci kaso wala ñu grâce ko tey mu génn mais est-ce que mënu bénéficier wu ci loi léegi li ma mënul concevoir loolu ban façon de dealer moo fa wala nit ñi lan lañu doon xaar ñun ñu bootu ci ginnaaw Ousmane Sonko pour ànd ak moom élection présidentielle moom mu falu pour ñun ñu mën ñoo grâce wala ñu mën ñoo admissé wala ñu mën na modifier ces lois pour ñun ñu mën a bokk loolu wax bu yenu maanaa la te moom mu ngi exercer programme ñun ñu war a indépendant exercer suñu programme ban raison d'être lan la fi def loo xam ne ne wala ban parcours politique la fi am bu extraordinaire bi nga xam ne ne ñun dinañu mën a topp ci ginnaaw bu dee endurance politique lu ñu daj ci politique ak lu ñu teg teguñu ko ko ñun on était combien de fois député combien de fois ministre. mais may na leen loxo nag. mais dama. non bi ngeen génne moom benn benn jamono moom. taxawu Sénégal non attends non euh, Lamine Lamine. non déglu ma déglu ma dans Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko may nañu bëri loxo. pour mu taxawaat politiquement Khalifa Sall ci la bokk. dama ne. dama ne. oui loolu je n'accepte pas je n'accepte pas aujourd'hui et je vais pas la demain demee ma ko mës a nangu xam nga lu tax. lu tax Barthélemy Diaz tey moo intégré Ousmane Sonko dans la Yewwi Askan bi ñun ñoo intégré Ousmane Sonko dans la Yewwi Askan bi ñun ñoo ko intégré ñoo ko dugal dans la Yewwi Askan bi Yewwi Askan bi avant Ousmane Sonko ñoom Habib Sy F24 ñeneen ak ñeneen certains membres ñoom ñoo ci newoon ay dëcce. Ousmane Sonko bu ñuy xool c'est le dernier moom moo mujjee ñëw moom moo mujjee ñëw ni ma wax kan kan la fi jiitu biir ay biir yeewi askan bi loolu amul kon nit ñi li ñu waxante dëgg te maa ngi dëgg sànq benn wax ñu naan dañoo dàq Khalifa Abba taxawu Sénégal. dans la mais dàq nañ ko communiqué bi dama la ne. yow nañ ko yow dama ne yow exemple ma jël benn exemple. ma jël benn exemple terre à terre. Mhm. naka nga mën a dàqee boos bi lay fay yow. Khalifa Sall mooy bossu Yewwi Askan kan moo créé Yewwi Askan bi non mais yow conférence des leaders la ñëpp ay yem leader yëpp ñooy yem benn benn benn statut ñoom ñoo yem Khalifa Sall duñu fa nekk kenn dama ne bu ñu munti toll niveau bu ñu munti toll oui ñun ñoo créé Yewwi Askan bi ñoom ay doxandéem yu ñu woo ñu ñëw ñu bokk la ñoo ko xalaat ñoo ko dox tournée boobu li ci war yëpp ñoo ko def ñun laa taxaw Sénégal ñoo def loolu. Hmm. ba am slogan wu tey yeewi ba tey opposant bu jug bëgg cee bugg bëgg cee soo ayoon clairs kon Khalifa Ababacar Sall moom moom nga xam ne moo taxawoon démb créé yeewi askanam munoo créé yeewi askan yow nga toog de bojo bojo ñu taxaw ne di nga lay dàq ci biir yeewi askan bi loolu wax yi dof la du waxi nit loolu dafa war a leer. démb rek dama amoon émission mais dama ne woon bu conférence des leaders amoon man Lamine Diack j'irai j'irai là-bas dinaa dem assister je vais assister à cette conférence de presse parce que amuñu ndigal amuñu droit te dàq nañu nañ lañ ñu dàqee xanaa nit kay boo koy dàq ci mbir boo xam ne ne c'est des papiers administratifs xanaa boo koy dàq di nga ko dàq juridiquement wala di nga ko dàq ci beneen mbir mais noo koy dàqee par des théories par des écrits léegi yow askan est-ce que écrit rek la moo ko tënk. ci lan liñ ko teg ci ban doole liñ ko teg parce que parce que parce que on a condamné Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko est en prison léegi kon ça veut dire ne que a qu'un seul leader dans li xew nii ci Ousmane Sonko tamit dañuy jàpp ne yéen daanaka defu leen benn effort wala euh, seen taxawaay en tout cas des na. par rapport ak li ko doon xaaree Sénégal xam nga lu ñu war a bàyyi nga excusez-moi du terme. oui dañu war a bàyyi jikko naafik excusez-moi du terme. Sénégal dafa bëri loolu xam nga lu tax Sénégal bëri loolu. Khalifa Sall Ousmane Sonko tey lu muy dund nii xalifa Sall du koo dund deux ans huit mois six mois xaw ma huit mois. deux mois de prison mu dund ko dignement loyalement honnêtement mu soo ko dégg mu nee la maa ngi dem euh, euh, hôpital maa ngi dem hospice maa ngi dem infirmerie maa ngi dem fenn fi mu ko tëdd la ko tëdd Khalifa Sall tëdd na kaso presque un an yëpp da koo woor. loolu da nga koy laaj ñi nga xam ne ñooy politiciens yi nekk biir ak ñun ñi nga xam ne ñooy militant am doo ko seet ko toog di woor ngoon ba ngoon te li muy lekk xam nga ne kaso amul souffrance bu ko gën a metti ci àdduna teewul sagaru tàndarma lay lekk ak leneen toog di ko jaamu yàlla ba yàlla leeral ko ba génnee ko fi mu ne Khalifa Ababacar Sall nekk en prison en 2019 nekk en prison gars yi woote dialogue teewul il a mandaté des membres de Taxawu Sénégal pour qu'il part participer au jalo Dibo Leyti Ka Moustapha Niass keneen ak keneen Mamadou Dia Senghor bu ñu amee problème lan la ñu mujj du ci dialogue kaso bi bi ñu koy génnee lu mu mujj di ci dialogue wala yéen da ngeen bëgg afficher léegi Sénégal benn nouvelle génération bi du ñu bëgg afficher Sénégal benn benn profil bi nga xam ne ni mooy lan mortal combat wala dañu war a reyante wala dañu war a dóorante fii y a pas quelque chose de trahison tey Ousmane Sonko hmm. parcours bu mu mënte am hmm. juridiquement ñu convoqué ko hmm. wala ñu woo ko ci yoon wala ñu woo ko feneen ak feneen moo xam ne ne coono la wala métit la Khalifa Sall da ko gunge accompagne ko ci loolu mais ba ñu demee ba pare législative pare localité on est indépendant pour dem toju suñu bopp jarax mais attendez bu ñuy wax xalifa Sall est dans le système man loolu daf may jaaxal parce que xam nga lu tax ki nga xam ne ne nekk na maire de Dakar am ko première mandat amaat deuxième mandat mais pourquoi bu muy nekk première fois bu muy nekk première fois maire de Dakar mu mënoon a relier des alliance ak le euh, ak Macky Sall ànd ak le système il l'a pas mu refusé mu demaat deuxième mandat battre leen gagné Mimi Touré biir grave dóor ko dóor yi metti ñu ñëwaat foofu ñu wax lan ñu convo euh, demande ko waat soutien pour mu ñëw mu relier wu dans la il a refusé loolu moo indi condamnation am ci biir prison ci biir kaso mais mu génnaat ci kaso bi lu ci gën a garaaw est lu ci gën a garaaw te nit ñi war cee rendre compte bu mu génnee kaso pourtant mënoon na dem relier fekk ji Macky Sall ànd ak moom. xam na ne Macky Sall day bàyyi 2024 parce que ñu bëri dañ ci doon douter mais man j'en suis fii liñ toog waxtaan nañ ko ma ne la Macky Sall gëw ma ne dina am troisième mandat te doute boobu ma amoon critique boobu ma amoon loolu la l'ensemble des membres de taxaw Sénégal amoon te xamoon nañu ni que loolu mooy am parce que Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne ni boo ko mënul jàng physiologiquement et politiquement doo comprendre la personne parce que dañu am un président bi nga xam ne foog nga koy étudier kooku danga nga koy étudier ne en interne di ko étudier en externe. d'accord ma daaneel foofu daaneel foofu après dina ñëwaat si yow daaneel foofu tey yàlla def. ñu mhm. accéder tey ba dem fu tey mënoon na relier dem mais defu ko. Mhm. Khalifa Sall génnaat kaso 2019 génnaat kaso continuer dans l'opposition porter sa combat ba indi la yeewi askan bi la yeewi askan bi tey xoolal lu mu lu lu lu lu lu lu lu lu mu prouver au niveau des élections législatives au niveau des élections locales ñaata mairie la ñu gagné. tey kon moo tax boo taxawee nee ma Ousmane Sonko alors que y a membre membres y a des des des politiques qui sont dans le yeewu yi nga xam ne dañoo am base politique na au niveau national parce que nee nañu gis nga barigo bu amul ndox rek kay def bruit barigo bu feesee du def bruit Khalifa